jërë ngeen jëf mbokki ak Actubuzz TV jërë ngeen jëf mbokki àdduna gannaaw rek bi nga xamante ni naka ak tiis moo ñu daal di gane si tey jii nii ci li nga xamante ni rek moom mooy dese ki nga xamante ni moom mooy mamaa Diaga mamaa Diaga nag ñu gën koo xam si eh, yaayu Wally Seck moom rek mi nga xamante ni tey jii moom moo ñu daal di eh, quitté daal di génn àdduna mu doon nakkar bu méttee métti gannaaw bi nga xamante ni xëy nañ tey jii nii euh, si samedi bi daat koy yëg ñëpp yëgandoo ko kii di xamante ni moom mooy Mama Diaga mu daal di àdduna tey jii nii nekkoon si yaayu Wally Seck hmm. mu doon loo xamante ni nag di ko jaale famille euh, Thione yëpp yëpp yëpp di ko jaale famille Seckeen yëpp gannaaw rek bi nga xamante ni yàggul dara ki nga xamante ni moom mooy Momy Dany Guèye daal di génn àdduna mu doon loo xamante ni lu méttee métti la yàggul dara moom rek mu daal si euh, euh, tegu mu doon rek loo xamante ni lu daal di bett nit ñi lool lool waaye nag lépp ngi daal di koy dekk li nga xamante ni moom mooy yàlla suñu borom gannaaw gi bi nga xamante ni rek moom mooy dogal li ni la mu doon loo xamante ni rek lu bett nit ñi la waaye nag euh, nit ñi gëm nañ yàlla lool gannaaw bi nga xamante ni yàlla def na ay ndogalam loo xamante ni daal na koy teg si ndodd ki nga xamante ni moom mooy famille Cekkeen mu doon loo xamante ni di métti ak ci Actubuzz di ko jaale nga xamante ni moom mooy waal euh, Wally di ko jaale famille Thione waaye nag di euh, euh, naqarlu li nga xamante ni rek moom mu am waaye nag di ko delloo yàlla suñu borom. mu doon rek loo xamante ni métti na trop ngeen gis image yooyu ngeen gis yàggul dara ginnaaw bi nga xamante ni Wally Seck moom moo doon def ngénte daal di jël doom ji tuddee ko ki nga xamante ni moom mooy yaayam jilee yàggul dara waaye nag si noonu rek si la ki nga xamante ni mooy yaayam ji daal di yaayam amoon mbégte gannaaw bi nga xamante ni waa jël na doomam bi lay tuddee ko ko daat ci teg xaalis bu takkoo takkoo jox ko ko mu doon loo xamante ni ah, surprise la si moom gannaaw bi ko waal defalee lii ne waaye kii di Mama Diaga daat nañuy quitté tey jii si samedi bi mu doon loo xamante ni lu metti metti metti loolu ngi fii ana damay taseeg moom lu bari. waali yaa dis góor waali yaa baax yaay doom ji noppal ndeyam yaay ki baax nag man lu baax waali yàlla nga yokk sa yaay ji nga def fee waali fee ngay jël respect. waaw muy ngay waxal ca kaw. la préférence. xale ma jigéen mboor. bëccëg ma jigéen mboor. faaw wax ji bari. yow yaay njëkk jaay. faaw coow li bari. jaaga jaaga jaaga. waaw yaay wala mariage bi bëccëg. sa tatative. yaay teg bopp ndey koy jur. réew mi bàyyi sa yaay. yow ñi nga doon fekk ko leen diine ngor dimbale jaamu yàlla rek nga xam jaaga yaay wàllu bala ko maam ji yaay kat may sa bi yàlla yàlla guddal sa fan sakal gas ko dañoo jaaga sama yaay nee naa la dama dama sakal gas kan ni mariasi mariasi may sa bi sa baay bu mu ñëwee sa baas kan ni ko ma jàll

yaa boo jaayee sa bët ci kaw ci kanam moo ko moo ko liggéeyee moo ko liggéeyee sa bët moo ko liggéeyee ku ne mu baax amul baax. kontaan naa sama xarit la sama ko bëgg sama xarit la. yaa ko wutal ci kër baayam bii moo ko wutal ci kër baayam bii. war naa mën a leen dee. yaa booy yaa booy yaa booy yaa booy yaa ko liggéey yaa ko liggéey ak laaj jot jot ci leen yaa ko liggéey ak jot jot ne ñu ne bloqué te Alassane Mbaye wax moo ni ma président sax mën nga ko jur ñun waani rek lañ toog sant du peuple yàgg baax yàgg gore lañ toog Baye Diack xale yi dañuy naan yaa ko fi am wante yow mii yaa ko fi liggéey dem sa jàmm yàgg yàgg yaay Thank you. Jëm jooje moo gën a dey moom seen waa Muhammad suufam sooseeb moo gën a laab Seydina Muhammad yaa ca Madinatu Rasulillah yee guddi yooyee moo gën a leer ci lépp luy leer Seydina Muhammad wa huwa akmalul waraa yoon Yàlla Muhammad sa soppe boo xalqam wa ñëpp a kontaan maa ngi gërëm baa nga xaraw maa ngi gërëm baa nga xaraw waaye dafa mag gërëm nee du xaraw yaa ci mel yow ku ko am jël

ala ma jigéen mboor. waaw ma jigéen mboor. faaw wax ji bari yow yaay njëkk jaay. faaw coow li ah, bari. jaaga jaaga jaaga. waaw yaay sa taatati. sa yaay. waaw baabu mbénga. yow di nga tontu fekk ko leen. góor dimbale jaamu yàlla rek nga xam. jaaga yaay wàllu balaa ba sa yaay kat may sa bi yàlla yàlla guddal sa fan. yàlla baas a jaaga sama yaay bi. naa la dama ma sakal baas kan mariage mariage may sa bii sa baay bi mu ñëwee sa baas kan la yoon. ma jàll. jaaga sa yaay sa kan baas kan. ma jaaga

baax amul baax. waaw man nangu kontaan naa sama xarit la. dama ko bëgg sama xarit la. ci kër baayam bii. ci kër baayam bii. war naa mën a la dee. dugam dee. jabooy. jabooy. jabooy. jabooy. jabooy ngeen gën jabooy ngeen ak kër laaj jot sa fiire. jabooy ngeen gën bëgg jot ne. buñ ne bulotee. ne Alassane Mbaye wax nee na. waaye ni rek lañ président sax mën nga ko jur. waaye ni rek lañ ko ma ko wax de. moo ne ma président sax mën nga ko jur. man man man ñun waaye ni rek lañ toog sant du peuple yàgg baax yàgg gore moom lañ toog. waaye jàng aada aada aada saa yu tëdd yu nuyu. waaw man ñëw. yàgg fi liggéey de. xale yi dañuy naan yaa am wante yow mii yaa ko fi liggéey kenn sa jàmm yàgg suufam sooseeb moo gën a laaj Seydina Muhammad dee ca Madinatu Rasulillah yee guddi yooyee moo gën a leer ci lépp luy leer Seydina Muhammad wa huwa akmalul waraa yoon Yàlla Muhammad sa soppe boo di akan xalqan wa